asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñu dellu nuyu waat leen leen sant leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk a ngi koy ànd ak QTV seen programme jigéen ngeen di si ànd ak seen doomi ndey liggéey tey nag bési tey gi macha allah comme lu may faral di wax rek na di dem waaye nag tey dafa dem si beneen level li tax nag ñu ne dafa dem si beneen level am si kanam tuuti nag di ngeen ko am ndax dañu taal benn gan boo xam ne si biir kër gi nga xam ne jamono kenn du ko laam-laamee di yaay réew mi di jàppale kii nga xam ne nag mooy suñu président Her excellency yi madame Fatoumata baro tay mom len am ci bir keur gi ñu bayla nga nuyu ak ñuy sétane waaye bala ñoo gëna a sori nag sa sansé rafet na ah, ñaw bi aji dafe moo si jaar sha allah ñi Gambien aha kay waaw nice na nice na trop ñu bayla nga nuyu ak ñuy assalamu alaykum Gambia alaykum ah, ñuy sétane QTV man len na nuyu di len santa am na solo tey nag macha allah ñu ne dañ ñëw nag pour am ak yow waxtaan ci programme yu jigéen ndax du ñàkk sax da nga dee programme yu jigéen. waaw am na sa benn épisode bu ma seetaan. gis la ngay fóotal ki nga demoon interview. Ah, di ko dimbale si la ma waaw lii la. because soo ko bëggul doo ko mun a def. la. looy def nga bëgg a ko. Mhm. dans si dee dem bem jeex. aha kay mhm. am na solo xam ndax du ma sax man rek waaye Gambien si yëpp bugg na ñoo xam. kan moy ha Excellency madame Fatoumata Barrow ah, Fatoumata jabar la mhm. raka la si ñeena jarbat la si ñeena dom la si ñeena set la si ñeena mhm. yaay la si ñeena ah, njëkke la si ñeena muy ah, mam si ñeena tamit because sumay domi mak tamet tamit am nañ dom, te oh. naa proudly say that ñu tamit suma sët lañ machallah dinañ bëgg a xam tamit fan nga juddoo fan nga yaroo yéen ñaata nekkoon si family bi. Uh, actually man maa ngi juddoo primate. ok 35 waaye suma tante moo ma yar. waaye suma ñun ñetta la am. and suma ñeneen ñaari brothers yi are not living with me because suma yaay daf daan tukki dafa dem ak ñoom man ma dem dëkkaa suma tante Basse. Basse laa demee primary school. foofu laa defee secondary foofu laa seeyee foofu laa gisee tamit His Excellency bi see ak moom. alors ah, kay <laughs> am na solo fu mu nekk nii allah li nga wax parce que boo ko seetloo si réewi lu dee am ay xale yoo xam ne dañ dee dem yarlu waan mm-hmm. si ki nga xam ne nag mooy toomaayam. Mm-hmm. waaye nag wax di ne xelam yar ma yar boo xam ne macha allah fu ma toog dama koy waxtaanee. Mm-hmm. tey naka la la jigéen yare suma tante moo toppa si suma yaay. Ah, yar na ma. because daf ma daan wax ne jigéen doo gudda tànka doo bari affaire doo bari doo jëlantu mhm. yar bi ah, macha allah kontaan naa ci torop dëgg la because tey liggéey jigéen bu nekka man mun naa ko araw ak mooñ mhm. lu nekk mun naa ko because loolu tamit ñun suñ kër sawaruñu woon si togga cere yooyu moo tax waaye dëgga dëgga yar na ma si yarin siratal musakim alhamdulilahi rabbil la am na solo am na solo mhm. tey macha allah bi nga déggee ne sama euh, euh, suñu président di Adama Barrow mhm. nga toog rek dégg na te wiiw Adama Barrow win na te it nga ñëw nekk nekk force leader bi naka nga dundee woon life boobu noonu Euh, balaa yëf yi di balaa ñoo wax wiw mhm. dafa am process bu start dañ njëkkaa ñëw ñeena approach ko si pati bi mhm. buñ ko approché mu ñëw kër mu waxaa man waxaa famille bi mhm. ma ne ko ne man dinaa la boot this is a national duty suñ la oolee pour nga def leena de dañ am yaakaar si yow den yaakaar boobu noonu doo ko mun a toon baak jëlal fit nga dem because ñëpp xamoon nañ lu fi nekkoon ma ne ko waaye yàlla dinañu dimbale because yàlla xool la dee fey fay waaw am na solo mhm. léegi yow macha li nga jël moom li nga ko wax nag wax di gane la jigéen gu baax rek a ko mën a wàjji jikkaram mhm. waaye bugg naa xam naka la life meloon ak yow ndax gis nga benn changes gannaaw boo nekkee foos la di man to me it's normal suma life bi ma doon dunda moom laa nekk dunda ba léegi dëgg la waaw dëgg la Hmm. amul benn différence. non ok mhm. mais dafa mel ni daal ha excellence bu ñu xamoon démb ak barki démb ba tey moom leen nekk di ah, demal. foog naa ne kenn mun si biir building bi right naa mun naa attest loolu because xam na ma balaa maa nekk first lady. ah kay te xam na ma léegi bu ma gis na ma ñaari yoon bi ma nekkee first lady ba léegi. very good am na solo xam nga wax di gaa neex yàlla kenn mënut a wax ne doo dégg ay wax yoo xam ne wax yu ñaaw la. understand nga yeneen saa yi nga dégg wax yoo xam ne li yàlla xam doy na ndax yónnent bi dañ ko fi daan wax lu gën a garaaw mhm. kon defe naa ñun suñ toogee bay dégg yenn wax yi naam am na num ñoo naxaree sa waaye am na nuñ koy jëlee ma bugg a xam yow balaa ñoo ñëw si njiiti réew mi yow sa mhm. jëmmi boppa soo déggee kàddu yoo xam ne wóor na la pene kàddu yi métti na naka nga dee jëfandikoo ak kàddu yooyu noonu dama dee dem ma jàppa ma ñaar ñoo jule ñaari raaka mhm. soo ma jullee ñaari raaka ma ne yàlla yow yaa ma fi teg yow yaa ma jox place bi nii te xam naa ne doo ma bàyyee noonu yow yaa xam lu tax nga jox ma place bi léegi doo ma mun a bàyyi despite ne man yow yaa ma tànn nga isi ma si yi ñëpp ah, ate moom moo génn man nag duma dee wax ne duma dee tooñ mhm. waaye suma maam daf daan wax ne mhm. yërëm na ku ñu tooñ waaye ku ñu tooñ rek nañ ko jéegal man ñaan ñaari raaka jaar ñaan ne mhm. yan na ma yàlla dimbale su nekkee ne maa ko def nag yan naa feeñ waaye su nekkee defuma ko tamit yal ma yàlla yal na jégal ñi ko def. waaw am na solo te foofu dem mhm. ku boot bukki xaj boobu la. waaw am na solo macha allah daa mhm. ba neex na ma lool fi nga daanelee ku boot bukki xaj boobu la. Mhm. te gis nga lenaa ma gën a neex si say mbir doo dee tontu. waaw doo dee tontu. Mhm. ndax am na ñoo xam ne bu buñ déggee benn rek ñu commencé di tontu ndig liy problème yi tontu suñ la waxee benn yoon nga tontu ñu ne ah moo ko def moo tax mu tontu mu indi si ay leeral ñu waxaat la nga tontu ñu ah, dëgg la moom tontu na first time bi tontu second time bi waxaatee nga ne ah ñii den ñàkk a fayda dama soona léegi duma leen tontu ñu ne ah tontu woon na first time bi tontu woon na second bi bii mu bañ a tontu kon dëgg la kon nag the best thing mooy si yenn wax yi. nga bañ di tontu bàyyi leen si biir di leen seetaan ndax du. waaw because uh, quality boobu tamit. suma mhm. yaay laa ko xamee. very good suma yaay mun ngaa waxaa moom def lu nekk ak moom suba ba ngoon. so su la parewutee tontu du la tontu lum la bugg a tontu because daf dee ne ñaari lam. Mhm. ñoo dee make noise. te ñaari nit ñooy xuloo ñaari nit ay xee. su kenn ki waxee yoo nga noppi. doo leen mhm. musa xee. the best thing daal mooy ne nga noppi nga toppatoo sa soxla. nga let go nga continuer. it's not ne danga ragal or anything. waaye da ngaa wone beneen quality. ñaara dee xeex ñaara dee xuloo ñaan naa ñëpp nag mhm. ñu jël qualité boobu su nit waxee mhm. yàlla borom bi xam na ne si loo nekk ndaa dëgga la ndaa du dëgga loolu sooy tontu comme li nga ko waxee man dama leen ne mhm. su ma tontoo bii yoon mhm. ma tontuwaat ëllëg tontuwaat gannaaw ëllëg gannaawaati ëllëg su ma tontuwoo ñëpp dañoo ne dëgg la moo tax waaye di best nga ignorer nga continuer aha kay because yéene tamit distraction la day nekk dëgg la am solo macha allah te xam nga nag doomi aadama wax di gane lu leen neex nañuy wax mhm. man damay faral di wax sa soo toogee xam ne ah lii su ma ko waxee si lingeer kontaan te mu óor la pig ne du wax bu rafet te yow bugga nga loola kontaan loo man may naa la nga wax five years kenn du dee discuss ma affaire. macha allah kenn xamut ma. Mhm. tey suñu waxee kon. position bi la. dëgg la not Fatmata. Mm-hmm. waaw because ñu fi nekkoon wax nañ leen. Mm-hmm. dem nañ ba bés bu ñu fi jógee kenn waxatut leen. dëgg man tamit bés bu ma fi jógee kenn du ma waxati. macha allah waaw xanaa yéen a jëf yu rafet yu may def. Mm-hmm. oo jëf yu bon yu ma def. loolu rek la ñoo wax yi. am na solo am na solo mu doon gën bu gën gën bu am solo. leneen tam bëgg naa la ko laaj nga amoon na time boo xam ne comme li nga wax balaa ngaa nekk first lady mun nañoo wax ne euh, private person nga woon. waaye jamono bi ñu toll public nga la a di dundee loolu tamit ah. because am na place yoo xam ne di nga fa bugg a dem doo fa mun a dem te da nga fa daan dem am na place yoo xam ne xam nga rek xam nga yëfi jigéen fu de la ñuy bugg a dugg a génn waaye dafa mel ni jamono yooyu nag dafay limite ak yow ndax yow moom pour yow life a ngi same man life is the same ok Fuma buga dem dama de dem. waaye dama de discreet okay. muna anda ànd nit mm nit. bu ñaari security dem toppatoo suma soxla. ñëw mhm. because legue legue sama dohantu dem si marché bi fi jëndi kong dëgg ken kenn du ko la wa because feel nane, ne dama gisat, gisat suma client yi si marché bi bugan legue legue ma laccé number ñu mhm. jox ma ma call borom waxtana mom moom parce sama feel ne deka bi fii laa fii laa magee fii laa yaroo te fii laa bugg a desaat dëgg la léegi li ma bugg a mooy comme ma mun a delluwaat back to society I have to mingle with them still macha allah waaw am na solo hmm. léegi de bugg neen nga wax ñu tuuti tuuti rek sa jaar jaar balaa nga doon doon foos la di si lan nga nekkoon di yëngu ah, yëngu naa si lu bari mm-hmm. because Elton liggéey naa fa hmm. def naa other businesses tamit. ok am na solo am na solo léegi nag bëgg naa la laaj bu ñëwee si wàllum euh, politique ndax waaye balaa foofu sax ni am na lu jomb parce que nee naa la comme suma la laajee yi nga xam ne dañ la koy wax ay kàddu yoo xam ne kàddu yu ñaaw la te macha allah ni nga waxee ne noonu nga ko dee traité mu am solo lool. Mhm. waaye kii nga xam ne nag mooy sa séeri ko macha allah kooku nag boo déggee ay kàddu yu ñaaw naka nga ko dee dundee. du ma dee euh, the same thing like di nuyu sama boss. Ah, dama dee ñëw ah. rek xelal ko ne. ñu la wax bul tontu. Mhm. because démba kenn du la ko wax. te soo suñ la ko waxee is because of danga boot bukki. moo tax am na solo dégg bu nga kàddu googu moom xaw ma foo ko jëlee waaye jàpp si. Mhm. na ku boot bukki rek xaj boobu la. Mhm. loolu moom saa su nekk dañu koy wax wala ku dem si marché bi dee fa. yaa tàgge sa boppa soo yooyu mu ngee firi comme soo nekkee ab njiit mm. foo jaar yenn kàddu yi nga di ko dégg waaye luy solution bi rek nga bañ a tontu maanaam def li ngay def rek te bàyyi li def si loxo yàlla mm-hmm. mu doon mbir mu am solo léegi nag dinañ ñëw si sa njaboot bi ndax tey bu naree ba nar a si loolu nga xam ne mooy politics mm-hmm. ndax di leen bàyyi ñu dugga si politics bu dee naam bu dee nag doo leen bàyyi ñu dugga si fi politics nga wax ñu tam lan moo tax doo bàyyi ñu dugga si fi politics uh, actually comme suma famille. waaw man dañ ma bàyyi woon ma independent. very good man tamit damaa bàyyi suma doom yi ñu independent. naxa kay waaw naxa kay. because suma doom bu góor bi. waaw moom he is 22. ok moom he decided to be an accountant. ok suma doom bu jigéen bi. Mhm. moom bu mu amee four years. Mhm. dafa feebar mu tëdd lopitaan. ok waaye since that day. Mhm. moom daf dee ne moom docteur la bugg a nekka. naxa ah, kay dama dee tooñ sax ne ko docteur Barrow kaay seetal ma lan moom ma jot. <laughs> dégguloo at least macha allah waaw. foog naa ne parents yi dañu war di bàyyi seen doom yi luñ bugga seen bugga bugga ñu ñu dimbale leen ci waaye di yow loo bugga because yow li nga bugga dara fekk mhm. baaxut si xale bi la moo tax man daal dama décide ne pour xale bi na independent waaw nga gis ne daal bugga na dara daal nga topp ko si bugga bugga boobu noonu nga dimbale ko ci daal mu am na solo am na solo xam naa ne xamuma nag comme xale bu nekk am na xelaat boo xam ne ah man de ma màggee bugga naa nekk lii comme man dama yàgg di wax ne nag dama bugga di liggéey télé waaw man moom yàgg naa di wax ne dama bëgg a liggéey télé ni ku nekk am na loo xam ne moom nga bëgg sa taay mi xale mm. yàlla def na nag macha allah alhamdulilahi rabbil alamin liggéey naa télé maa ngi liggéey télé mm-hmm. soo ñu xamul yow sa taay mi xale lan nga yaakaaroon ne dinga ko nekk boo magee man daal li ma daan xalaat yëpp to work in a communication company. ok oo pilot. ok waaye suma yaay bi ma jur dafa ma daan ne yow da nga mun a laajte. Mhm. naa ne nga nekk journalist ko lawyer moo doon gën si <laughs> yow. Ah, waaye benn laajte nekkul am na mhm. solo ndax mosoon ngaa toog xalaat ne ah man nag dina am jamono. dinaa nekk first lady de. xam nga man dama bugg a leeral tey ay mbir tey bi maa liggéey si FM first lady leen ma daan ooyee. waaye nag dama leen di xamal ne booba jamono feeg la real one baa ngi nii te baa ngi toog ak real first lady bi su ko defee am na lu ma la laaj nga mun koo tontu. non musuma koo xalaat. ok waaw ok musuma koo xalaat di nga nekk first lady. ok waaye bi ma sëy see ees rek ah, benn jarbaati suma jëkkër mhm. daf bu ma sëy rek daf ma daan ooye first lady first lady being the first wife of the fam ah, lii nii oncle am xam nga waaye musuma koo xalaat ci suma dëgg la mhm. dëgg la léegi nag ñu ñëw si suñ série ko nga xam ne macha allah mooy ko Coco Gambia yëpp di papi Gambie yëpp macha allah dina la laaj naka nga ko muté parce que man su ma jëkkër si Facebook la daan taxaw 24 hours su ma génnee rek yurlu rek gis ko mu ngi taxaw mu jaaxal ma lool su ma yaay ne ma moo def nii ma ne ko naa ñu def délégation ñu dem laaj ko moom saa su nekk lan lay taxaw si fees bëgg naa nga xamal askani réew yi Gambia naka nga mitee ak sa jëkkër suma jëkkër man ko mit trop si ki ma yar because man laa ne suma tanta moo ma yar dëgg léegi suma tanta bi ma yar doomi wujaam Euh, jëkkëram mooy teacher am primary school foofu la ma gisee den mu wax ne daf ma bugga den kooku ooma oh, mu explain ma ban façon ngi nit la ma ne ko waaye man tamit foog ma xool because dafa am qualities yu ma dee ut si góor ah, because ever since dama daan ñaan yàlla yan na bu ma tasee jëkkër buy naan ak tu cigarette macha allah an koo xam ne dafa jullite léegi mu explainal ma mu ne ma kii mu ne daf la bugga léegi dama bugga pour nga seet yoo tamit how do you feel when you see him bi mu ñëwee ñu mit ñu toog ñu waxtaan after mu yónni yaayam mm-hmm. yaayam ñëw seet si ma bu yaayam ñëwee am lenn yu ma wax ne naa ko defal mu dem utali ko ndox mu ñëw am na lu mu doon seet si ma ah, bu mu ñibbee rek mu ne doomam ne dem yónneel goro because kii moom soo ko amee am nga jabar mm, dëgg la mm. mun nga ah, man daal suma xarit la mm-hmm. because dañ sëy arrange marriage la after ngi mu mataka the 20th of March ñu weer 31st of July mm-hmm. as fa uh, pël nuñ dee def mm-hmm. duñ dee abale dañ dee muur seen doom yi ñu dem sëyi den bu ñu muuree 31st of July mm-hmm. 5th of August nekk suma birthday. then after bu ñu celebrate birthday bi ba pare. Mm-hmm. ma teg ko ma ne ko ne dama bugg a xam sa do's and don'ts. man tamit wax la suma do's and don'ts. Ah, then ñu war a waxtaan ñu xool. Mm-hmm. since that day nag ma ne ko ne dinaa la jàpp suma mag. suma jëkkër suma papa suma xarit. and but friendship bi mooy nekk number one and bëgg naa tamit ñuy communicate mm-hmm. because ñun xamante wuñ because communication moo dee tax ngeen gën a mun a nekk benn kenn ki mun naa jógee China nga mm. jogee Istanbul waaye mun ngeen a communicate mm-hmm. te tey mun nañ koo firndeel si social media bi sax dangaa gis ñoo xam ne xamante wuñ ñu ngi waxtaan waaye ñu ngi am mutual understanding wa communication bi mooy yëpp si lañ leen macha allah this year we are macha allah mm-hmm. yal na yàlla yow ko at yi mën nga ñëw wax tamit ban façon ngi papa la ndax xam ne ban façon ngi jikkër la bon fa suñu papa njabootam njabootam kee na torop ah, because li xew mooy moom bugga na su wàccee liggéey mm-hmm. mu fekk añam mu añ du génnaati ba di following day suy demaat liggéey moom that type la mm-hmm. te dama dee tooñ sax si kër gi fii ma ne leen ñun su gerte jotee dañoo yee gerte ba gerte jee su man du may lekka mango waaye su mango jotee waa kër gi dañoo lekka mango ba mango jee season bu jot mhm. dañ ko dee enjoy ba mu jee moom lu nekk dafaa jënd mu isi si kër gi ñun ñëpp ñu toog ñu enjoy ko that type la macha allah mhm. am na solo xam nga atum 2017 mhm. doon na at boo xam ne réewi Gambie kenn du ko fàtte bu njiiti réew bi nga xam ne moo fi nekkoon toogoon si boppi réew mi Yaya Jammeh bi mu ñëwoon mm-hmm. du wàcc si réew mi mm-hmm. gis ne ne booba jamono kii nga xam ne naka mooy président Adama Barrow moo taxawoon rek ne gis ne kii nga xam ne naka mooy njiiti réew mi dina dem comme ki nga xam ne naka mooy laaw buur bi moom la fal mm-hmm. nga nekkoon jigéen nekkoon yaay nekkoon jabar ndax booba jamono naka nga yëgoon loo yëg si si sa jëmma ji ah, li ma ko daan wax all the time mooy ne na teey su teeyee rek dinañ succeed because su dara waree xew ñun jigéen yi ñoo dee soona especially borom doom yi mm-hmm. si lañ ko jëlee step by step step by step tey loo yëfi fu yëfi fuñ toll nii alhamdulilah dëgg la am na solo man tey suma maas yi dañuy toog naan i su ma nekkoon first lady damaa dem fu nekk dama sol lu ne damaa lekk lu ne pour ñoom daal first lady liggéey boo xam ne la wala doon ko doon na mbir moo xam ne nag lu yomba la mm-hmm. soo dama bugg a xam ndax mbir mu dafa yomba wala yombut pour nekk first lady foog naa ne soo nekkee who you uh-huh. ki ki doon rek loolu moo gën a important da ngaa continuer. dëgg la man to me it's normal. suma normal life laa am. dëgg la waaw am na solo. Mhm. su ko defee tamit bëgg naa laa laaj ndax wax dëgg yàlla jamono yi kii nga xam ne nag mooy suñu njiiti réew mi di président Adama Barrow mu ngi wër Gambia understand nga tey macha allah tey la Christmas day am naa ñu gën a eh, ma ziyaara yi nga xam ne nag ñooy suñu mbokki christian si di jamono bi wax dëgg yàlla xam naa ne gaa yaa ngi seetaan waaye balaa ñoo ñëw si président Adama Barrow rek lan nga mun a wax diggante Gambien si ñi nga xam ne nag ñooy julliti yi ak ñi nga xamne nekkun julit yi tay di ci sen tay sen fête la tay la Christmas day So ñu bëgg la laaj rek yeen cadeau nga am ak ñi nga xamne ñoy ñooy suñu christian yi ah, suma mbokk christian yi mhm. man dama ne dama ci boka because li xew moy suma mhm. primary school be secondary school yeb christian school la dem mhm. Be pare dafa am reverend father bo xamne suma adopted father la by the name father Peter Gomez dina kontaan trop ça ma ngeen nuyu ñom father Peter Lopez uh, Fada Tupan mm-hmm. Fada Moses Dramé ñoom ñëpp Fada Gabisi mm-hmm. ak sista si man leen naa Christmas bi ñuy daax ak Christmas yi yëpp mhm. yi ngeen mus a am macha allah ah. am na solo yal na yàlla nangu ñaani su ko defee nag ma laaj la comme jamono yi comme président bi mu ngi wër Gambia understand nga ñu bëri di leen wax ne ah, kii nga xam ne nag mooy ah, ma first lady bi waroon naa bokk si ñi nga xam ne dañoo waxtaan ak jigéen bi Gambia nii ñu bëgg a xam lan moo tax ànduloo ak président bi pour waxtaan lu jëm nag si wàllum yokkute réew mi. man président bi. Mhm. meet the people stall la dem. man dama am office dama dee toog comme nit ñi su nekkee ne dem na man tamit am na ñoo xam ne dañ dee ñëw si man mbokk yi ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi seetaan seen programme yu jigéen fii si QTV tey nag macha allah dinaa leen programme yu jigéen dafa dem si beneen level Linguère dafa dem si beneen level mais Moussa Tunkara bi ma àndal mii tey sax dafa dem si beneen level ak suma team bi yëpp day den dem si beneen level ku ñu yóbbu nag si beneen level mooy first lady bi nga xam ne nag mooy ha excellence yi Ba Baro am programme yi dañuy dem ak break continuer programme bi. From an early age, we value the feeling of speed. The thrill of the wind as we rush to our destinations, the feel of our feet bounding over the ground, the way the world blurs as we rush by, faster, faster than a ray of light, I'm flying. I have one speed, I have one gear. Keep on moving, I won't stop till I get there. Want to experience speed? Then subscribe to the Gambia's 4G LTE mobile network QCell. With speeds of up to 45 megabytes per second, you can get online in the blink of an eye. The fastest browsing, stream videos faster, do much more faster. Just our star 335 high to join the fastest club. QCell's 4GE LTE mobile network. Go faster. For more information, call 111 QCell. Senior Boss. We innovate, others follow. ñëw continuer ak yéen comme ni leen ko waxee woon si njëlbeen su ko defee nag ñu continuer laaj bi am um, ha excellence yi Ba Barrow gis ne ne wax di gaani xela comme li ma la doon laaj rek kii nga xam ne mooy njiiti réew mi jamono yi nag mu ngi wër Gambia ñu bëri lan moo tax force lady bi àndut ak xam ne nag mooy njiiti réew mi waxtaan ak jigéen yi lu jëm nag si yokkute réew mi rawatina nag bu ñëwee si wàllum jigéen yi ok li tax mënuma àndaa moom mm-hmm. because moom office am bi mm-hmm. it's government institute. man dama compliment seen efforts. Mm-hmm. moo tax duma mun a àndaa ñoom. dëgg la waaw dëgg la am na solo su ko defee nag ñu ñëw si sa foundation bi. Mm-hmm. parce que dégg ne yaa ngi amee foundation ñu bugg a xam lan moo tax nga toog xelaat ne war ngaa mun a am ab foundation ak naka ngeen nekkee di wecci nit ñi seen dundin. because dégg na ne foundation bi ñu ngi jàppale askan gi waaye ñu bugg nga gën a xuus si foundation bi. waaw foundation bi um, man dama daan def social life bu bari. balaa maa nekk foos lady um, li xew mooy children's ward bi uh, neonatal ten years before ma nekk first lady. Mhm. dama dee dem si foga jaay bi. Mhm. jënd fa ay yére liir. ñëw fóotal ko suma boppa ah, paase ko yóbbu ko si loppitaan bi because su ma demaan seeti liir yi dama day fekk duñ dee sol yére léegi léegi suma mbokk yi nekk Europe ma ne leen ne yónnee leen ma den ma lii nii looloo tax bi ma nekkee first lady ma ne lii it's high ma def ko in a bigger scale because man doon def loo xam ne dafa ndaw léegi naa ko def in a bigger scale ma decide nag foundation bi register ko on the first of May waaye first of May àdduna bi yëpp xam nañ ne public holiday la waaye first of May because suma yaay ak suma taaw bi they share the same date of birth ah, waaw léegi waaye first of May bi mënuta dem ñu register on the second then the seventh of May 2017 ñu ngi ko register on the second the seventh ñu si ay docteur from Sénégal ñu startal ñu liggéey bi ñu operate yenn xaleel loolu lañ noonu lañ starté ba léegi ñu ngi continuer di dem te ñaan naa yàlla mhm. mu nekk a legacy boo xam ne suma seti mhm. dinañ ci liggéey du ne dama jeexal rek as a first lady ñu stop dama bëgg mu continuer am na solo ko defee ñu laaj rek fii ñu bii ñu fii balaa ñu naan juróomi at mhm. fan nga séentu foundation bi si boppam foundation bi waaw maa ngi ñaan foundation bi waaw ñu isi fi di force cancer center. Mm-hmm. maa ngi ñaan si yàlla borom bi. foundation bi is fi di first children and mothers hospital. am na solo waaw loolu moom maa ngi koo ñaan every day su ma julee loolu dama ko dee ñaan. am na solo am na solo macha allah dañuy gis tamit ngay faral di dem yenn si bu jàngeekaay. di fa mm-hmm. joxe say kàddu. ñu bugg a xam uh, um, xam at bi ñuy dugg si di atum 2021. Mm-hmm. yan plans nga am pour jigéen yi rawatina ndaw yi. Uh, li xew mooy mhm. dama dee ne kuy yoddu sexat dëgg la because soo seexatee dinañ xam si li nga <laughs> nekk la léegi li maa ñaan mooy mhm. nga baalal ma foofu moom ñoo lii nii ko waaw ñun dañ dee bëgga di surprise nit ñi because doo dee promise because soo mhm. promisee defuloo ko dafa mel ni ki yaa ngi tooñ am na solo am na solo saay bu nekk yow ak kii nga xam ne nag mooy Sadio yéen a ngi wane di wane salaam fu ñu leen gisee na ngay smile mhm. te defe naa loolu de na exemple boo xam ne doy na réewi Gambia mhm. ndax foo dem ñu ngi koy waxantoo mhm. nit ñaa ngi jël exemple si yéen weena yëg ngeen ko oo yëgu leen ko tey ndax mun ngaa xus foofu noonu waaw su ma raka la yàlla dafa dogaloon daf ah, man li ma dee gisee wuja dama ne yàlla lim waroon na def daf ko change in another way round because ñaala dafa waroon ne ñun ñaar dañ waroon a bokk ndeya baay ah, yàlla sotti wut ko foofu ñu boole ñu góor bi ah, because ñun ñaar ñëpp kenn xamul fan la kenn ki juddoo seen suñ waree bokka ñu bokka góor bi mhm. dañ bokka wërsëg moo tax te ñun ñoo dekkoon balaa ñoo nekka first ladies ñu ñoo dëkkoon benn néeg ah? waaw and loolu dafa war a continuer Ah, loolu la rek it's normal ah, kay am na solo xam naa ne jigéen yu bëri te being the only child daughter to my mom Sadio is my younger sister ah, kay am na solo masha Allah a am na solo mu doon yoo xam ne daal Gambians yaa ngi ko rafetlu te ñu ngee yàlla yal na yàlla gën a rataxal seen i diggante ñu bugg a laa ak kii nga xam ne nag mooy suñu maam bi nga xam ne nag mosoon na fee nekk président di Jawara Saa Dawda Kairaba Jawara sa diggante ak jabaram léegi ci leen nga di ci lël mhm. one side suma yaay la beneen side bi suma maam la waaw am na solo naka nga ko gisee na danga dee mun a dem si moom am ay advice na daf la dee mun a advice nag mu sonn fee nekk poos la di dañ dee waxtaan bu baax dëgg la waaw dañ waxtaan bu baax ok soo leneen lu ma laa bëgg a laajati rek ndax di nga bëgg a réwi Gambie ñu toog bi am fi président bu jigéen it is possible because I don't have revolve every day Degala. because amoon na fi bu Liberia mooy mhm. mooy first female president in Africa Muna Muna amat history repeats itself all the time aha okay. Wow. te it amna na lu ma la bugg laaj ndax wax di gare ne ku fonka di dem di def ay tagat la del legi sine say ngay daw medi Gambia na fi nga xam nak moy capital bi di Banjo. Mm-hmm. lu waral loolu ah buga fit rek mm-hmm. Wow, because wergu yaram foog naa ne force passing bu ko jox sa bopp. ah tey lekka toog te da nelaw foog naa ne amul njëriñ. dëgg la waaw. foofu a jaar daa nga tàggat sa yaram waaw am na solo yeneen saa amoon na jamono tam ñu ngi la gisoon yaa ngi jël ay mbuus macha allah ñu ne neen sànni mbuus yi wax diggaa nga ne déedéet mbuus yi war nañ ko mën a jëfandikoo de ndax wax diggaa def yàlla mbuus yi nga xam ne danga fay dugal suñu yëre yi mm-hmm. am na nu ko bëgg a def nga def ko noo xam a nga expliqué lañu si tuuti ak naka nga mujjee salade la woon de waaw la ak naka nga mujjee salade bi ah, bi ñu tombé woon harvest bi ñu dem muy dëgga mhm. dama dee toog all the time di dugga YouTube even butéel yi nii sax um, gis naa ci right now suma garden bi dafa nawet bi daf ko yaaxa oh, sorry because of uh, taw bi dafa bari di seer laaj laa si defoon te moom laa bëggoon a ñëw rek ne Gambien si laaj tamit mun na moo sax si Gambia bi waaye nawet bi moo ko yaaxa because how much duration bi naka lañ ko war a def waaye anything. Mm-hmm. mun nañ koo recycle. tey mbuus yi. Mm-hmm. mun nañ koo baan mm-hmm. mun nañ koo ñàkk a baan. waaye pour mu liita si dëkk bi lañ war a stop. loolu moo gën a important. because moom du dëkke. lu ñoo def mooy ñu jël mbuus yi ma sotti fa suuf dañ mix suuf bi tamit. ak Euh, lii ni pupi xar ak bu béy den ñu ñëw def si xooliti gerte green pepper bi moom ba léegi mu ngi on kay moom mu ngi xam ak batanse duy gaaw a dee waaw waaye yooyu moom ñu ngi on waaye yeneen yëpp alhamdulilah taw bi moo ko yaaxa waaye dinañ trayaat ñu defaat other experiment am na solo because si butéel bi tamit mun nga see mun nga koo dog nii nga juutal ko mm-hmm. nga dugal fa tomate doom nga xang ko ah. waaw si fence bi o anywhere danga koo xang rek loolu yëpp mun nga koo gis si YouTube bi. ah kay foog naa ne ñun ñëpp. war nañoo try because yëpp um, amut maño boo xam ne fertilizer boo xam ne imported fertilizer la. yëpp manual ah, lii nii mm, mm, ah, ñun it's all bio. I think health wise tamit moo gën a important because duñ dee xam ñii ñoo jaay si. Mhm. lana lan la ñu dee ñoo jaay si. foog naa ne ñu try kër gi lum ndaw ndaw ndaw. Mhm. ñu am si garden bu ndaw. Mhm. then foog naa ne dinañ mun a dem. am na solo dina wàññi tamit dépense bi. Ah, kay mhm. am na solo macha allah xam naa comme li nga wax rek nekku ne plan si yëpp la ñoo wax. Mhm. waaye defe naa du ñàkk a di nga sóoraale jigéen yi nga xam ne dañ am feebari cancer. ñu leen di yóbbu si yeneen réew di leen faj te saa su nekk ñuy jooy ab machine boo xam ne nag war neen koo am si réewi Gambie pour jàppale jigéen yi nga xam ne ñu ngi dunda feebari cancer bi ndax da nga bugg a ñu denc ko as a secret o da nga si bugg a xuus ah, boobu bugguma see wax dara because of foog naa ne ministre bi waaw moom moom question boobu very good because um, li xew mooy man li maa def rek mm-hmm. man ama compliments seen efforts. very good lu ñoo des ah, lu ñoo discuss lu nekk mm. ñoom dañ maa lii lañ soxla. because dama believe ne man am just an advocate. Uh-huh. te yow suñ ñu ñaar suñ waree ànda. Mm-hmm. ñu dem ñaani tunkara. yow nga ne ko tunkara ten dalasi laa bugga man mhm. ma ne ko five dalasi laa bugga foog naa ne man dina ma jox more than five dalasi because being the first lady xëy na loolu la moo rus jox bi la moo ma moom moo tax dama leen dee ne kaay leen ñu ànd ñu dem ma advocate leen waaw loolu rek la a dugga si domaine jàmbur dëgg la loolu ministre bi mhm. moo ko mun a wax dëgg la am na solo mbokk su ko defee ñoo demaat ak suñu ñaareeli break bi buñ dellusiwaatee nag continuer programme jigéen muy di Madame Fatoumata am programme mu ñu level. It's December and QCell is bringing you some amazing offers during this holiday month. You can enjoy a discounted promo on our new MiFi routers for only $2,400 and get 5 gigabytes of data for free. Get the best MiFi router for only $2,400 and connect up to 15 users with the fastest 4G network in the Gambia. So what are you waiting for? Rush now to any QCell customer care outlet and get a 4G MiFi router with 5 gigabytes of data for free or call our customer care on 111 for info. QCell, senior boss. We innovate, others follow. mbokk yi gannaaw bu ñu jógee si bu rek boobu nag ñu continuer programme bi jigéen fii si ma ah madame Fatoumata Baro nga baalal ma foos la di gis ne ne wax di gaare la jamono yi ñëpp a ngee laam-laamee li nga xam ne nag mooy feebari coronavirus bi ñu bugg a xam macha allah dégg neen yaa ngi si def ay ndimbal waaye nag ñu bugg laaj la lan nga xam si bile feebar ah feebar bi de mm-hmm. man dama si teel a jóg balaa keneen di jóg si biir réew mi fii nii mm. foog naa ne may di first person bu advocate balaa feebar bi di egsi si dëkk bi loolu yëpp dama believe ne fagaru moo gën faju moo gën taxoon waaye xam nga li xew mooy comme liñ lay wax mm-hmm. nit ki bul xool ne këri jàmbur mu ngi lakka mm-hmm. du ma ko dem dimbale ma fay kiram bi because tey feebar bi China la jógee mm-hmm. te ñu na China soriwaate nañ waaye nit ñi ñoo ko isi <laughs> because the more ñuy travel di moo yëfi di spread throughout the world li ma wax mooy ne ñun léegi dama leen a wax ne covid am nañ second wave li paase paase na mhm. ah, ñi dee yal leen yàlla yërëm ah, xare leen àjjana mu ñoom ñëpp ñu rëccu lu tax ñu yàggoon ci àdduna bi mais leen jannatu firdawsi ñi feebar bi wér mhm. xam nañ fan leen jaar nañ try bu mu ñëwaat because ñoom xam nañ feebar bi naka la méttee ñi nga xam ne dalut leen mhm. ñoom tamit ñu fagaru nga xam ne ëllëg su waree mu si dëkk bi mhm. demut mhm. ñu try ñu jël suñ mu ah, musluwaay ñu continuer di def social distancing bi ñu use max mm-hmm. despite ne right now using max because of interview bi waaye ñu ngi am social distancing bi pare bi ma dugasee joxuma kenn loxo ñu moytu wante lo nuy wante bi ba léegi mm-hmm. man bugga naa ñu continuer mm-hmm. di protocols suñ ko defee rek du bari waaw dinañ ko mun a xee ba bés bu vaccine bi di mun a ñëw ñu ñëpp ñëw jaar si dëgg la waaw mun nga ñëw wax ban lekka moo la gën a neex ak naka leen ko dee toggee man ah lekk yëpp neex nañ ma loo xam ne rek amut cheese. waaw na ma. because dama allergic to cheese. ok waaw. léegi togga yi nga xam ne nag toogi africain nii la comme toogi gambien bi parce que man ko bugg a suppa la. Mm-hmm. mun naa koo añee every day. waaw waaw. Mm-hmm. su moom suppa kanja. kon yow moom na ratax rek. na ratax rek. <laughs> am na solo waaye du ñàkk yow am na tooga boo xam ne ndax cere pol la. non man duma dee lekk cere pol déedéet. bugguloo futti bugga naa futti moom. waaw léegi ban ban ban lekk moo la gën a neex. man lekk yëpp neex nañ ma. non ma dégguloo ma la mm. ma ne la ne lépp neex na ma ba des loo xam ne dafa am cheese. ok man bañu ma dara. ok man that type ok bu ñëw rek nga lekk. man bu ñëw rek xanaa lekk bi ne ma bu ma lekk su boobaa duma ko lekk <laughs> waaw. te xam naa ne loolu du musa am loolu am macha mm. am na solo soo bëggee noppalee ko si àdduna bi lu luñ la tega rek lekkal. te mu am solo ñu mm-hmm. bëgg laa laaj tamit lan nga gën a bugga lan mooy sa bëgg bugga lan nga gën a bugga da nga bugga di read da bugga di daw da nga bugga di play football. seetaan football seetaan football. Mhm. bon mooy sa team. Arsenal. macha waaw waaye nag. dinaa leen setal leena. waaw man just ne seeg président Barrow taxut ma nekk Arsenal. man I was Arsenal since 94. man Ajax Amsterdam laa doon support. Hmm. waaye dañ jënd Nwankwo ma toppa ko. waaw noonu laa ñëwee Arsenal man du ma Arsenal because of président bi Arsenal la. dëgg la déedéet dañ tase 97 lañ tase maanaam Arsenal since 94. dëgg la waaw kon mun ngaa wax si jigéen yi nga xam ne ñu ngi play football fii si réewu Gambia dafa digga suñu jigéen yi fii ñu ngi góorgóorlu de. waaw soo xamoo yan kàddu nga am pour suñu jigéen yi nga xam ne ñu ngi play football. man leen a ñaanal. Mm-hmm. ma jox leen courage tamit ne football dafa am xaalis. Lo nekk di def rek dang si wara farlo ah, so okay. farlo si li nga def rek mhm. dinga si am ndam am na solo wa dëgg la gis ne ne macha allah am na jigéen yoo ne ñu ngi daan sen doole na jigen yi doole bi wax di la ko ci gis mu ngi xëy su bari dangi dangi balaa nga ko xam nga su suba fajar wax di gàne te yoyu jigen yan kaddu nga len di jox xamna ci dara because bi ma di sey bala ma nekk first lady mhm. su ma neighborhood bi yeb xamnañ ne man six man si bir ma bi because dama dee bugg a dem am di bes time boobu noonu ngay mun a am lu baax time boobu ngay mun a am lu yomba because man time boobu noonu laa dee mun a dem marché waaye li ma wax mooy ñun multipurpose people lañ mhm. lu nekk lañ mun a def mun na ñoo eew ñu ñoo dee xëy mhm. from morning to dusk dañ dee noppale ko ñooy toppatoo góor yi ñooy toppatoo goro yi mhm. toppatoo njëkke yi tooga añ fóot benn bés nga def loolu yëpp jigéen daal moom kenn mënut koo fay dëgg la waaw te defe naa gën war nañoo gën a mën a xuus si jigéen yi nga xam ne wax dëgg la amuñu office bi nga xam ne foofu la ñuy dem liggéey amoon business yoo xam ne moom lañoo dem dawale ji waaye comme li nga wax suñ xëyee suba fajar hmm. la ñuy jóg toppatoo seen njaboot toppatoo seen kër yi dem marché togg añ fóot paase yëpp ñu boole ko hmm. tey jigéen yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër yi yan kàddu nga leen di wax man leen a encourage ne li ñoo def liggéey la liggéey la métti na di leen ñaanal yàlla wàccee ko si ñoom mm-hmm. ba toog ba am doom boo xam ne daf la cee génnee mm-hmm. waaye tamit sa wérgu yaram daf si important torop because foog nga noppale ko tuuti mm-hmm. amal des yoo xam ne dangaa wax ne tey xarama ma noppale ko because façon yooyu noonu su si feebar feeñee rek kër gi yëpp dafa shot down because yokkee na yaa dee nekk foofu nañ jàngal xale yi tamit seen liggéey ah, liggéey kër yi dangaa gis ne su xale yi tamit di try dangaa mun a noppale tuuti waaw dëgg la te jamono bi ñu solo ama toll soo ko seetloo ngir coronavirus bi sax tax na mu gën a yokk mhm. ndax li nga xam ne nag mooy métital jigéen si jamono bi nga ñu toll jigéen yaa ngi koy dund yeneen saa yi nga gis ñu ne tànn leen fukki fan ak juróom pour waxtaan si ni nga xam ne ñu ngi koy métitalee ay jigéen mhm. tey nga dégg jigéen dóor neen ko ba mu tëdd lopitaan wala nga dégg jigéen métital neen ko si biir kër mhm. tey dama xamul yan kàddu nga bugg a si gender based violence yi nga xam ne mu ngi am saa su nekk rawatina nag si jamono coronavirus. maa ngi ñaan léegi am nañ helpline. si mm-hmm. dëkk bi fii nii koo xam ne yaa ngi nekk gender based violence uh, victim. Mm-hmm. trial nga call one three one three soo koolee dinañ la mun a wax lan nga mun a def. Mm-hmm. ak yan muccuwaay lañ laa mun a dimbale. ba nga mun a uh, survive si problème bi nga am te tamit dëkkandoor yi nañ leen dimbalante mm-hmm. soo déggee sa dëkkandoor mu ngi jooy oo dara ko dal fiil nga ne moom munut koo def koolal mm-hmm. gars yi ñu ñëw dimbale ko foog naa ne loolu mooy yëpp am na solo mm-hmm. am na solo te foog naa war nañoo gën a xuus si góor yi ñu yërëm jigéen yi ah góor góor a jigéen amuñ doole waaye léegi-léegi tamit daf dee nekk other way round am na jigéen yoo xam ne tamit dañ dee violent góor bi nañ dañ war a nekk lii dañ war a nekk on both sides because am na jigéen yoo xam ne tamit dañ dee violent góor yi waaye nañ try ñun ñëpp ñun nekka together mm-hmm. because xeex bi mm-hmm. or loo mm-hmm. xam ne dafa isib family bi because doom yi lu ñoo gis loolu la ñoo dundee ñoom it nañ try ñuy ko stop waaw comme li ñu ko wax rek ñu ngi wax si société jigéen yi nga xam ne ñu ngi leen di métital waaye jigéen jànq yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi daanu seen kow ndax boobu tam dañ si bugg a laal léeg-léeg ah. saa yi nga dégg daanu neen si xale bu am ñetti at xale bu am juróomi at. su ma ko gisee nag mostly. waaw dama de call suma PS. den ma call ministre bi. ma ne leen ne nañ leen follow up. ba yëfe lii nii man ma nekk si ganaar comme li ma la waxoon si ah, beginning bi mhm. man am just an advocate li xew mooy there is a ministry of women children and social welfare ah, te su ma waree jóg rek ne damaa defil lii maa ngi newal doole ministry bi seen liggéey bi moo tax dama leen dee call mhm. ne leen ne nañ leen demee nii bu gambien si fii ne man dama toog nekkuma di def dara déedéet man koo def si ron mhm. because ku nekk jox ko axam axam ak gédaam ba mut la moo tax dëgg la waaw anytime bu ma ko gisee bu ma yëg ko mhm. dama ko dee dama dee call suma pees dan ma call ministre bi very good ko in charge am na solo nga leeral ko pour ñu mhm. xam ne yaa ngi liggéey si ron si ron nekku ne yëpp la ñuy feeñal waaw am na solo mhm. su ko defee ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ndax wax diggaane xel waxtaan bi neex na ñu bàyyi la nga tàggatoo maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp maa ngi wis suma mbokki christian yi merry christmas and happy new year in advance ah, maa ngi ñaanal Gambia bi yëpp diggante muslim si ak christian si nu mel mhm. dangaa dugga yéen a kër nga fekka ne sax ñii ni këri luwaas doo xam kii mooy kii kii mooy kii te foog naa ne Gambia fii mhm. mut na exemple yeneen dëkk yi nga xam ne mun nañoo jàngee si ñun mhm. ñu ne christian yi benn lañ doo dee xam différence yi especially sax su juma bési jum aajuma ñëppay ah, sol xaftaan mhm. doo mën a ràññee kii mooy kan foog naa ne loolu lu baax la ah, bugga naan tamit may ñaan yàlla mhm. suñ diggante mu gën a sax mu gën a ratax mu gën a continuer am na solo yan kàddu ngay tëjee si sa série Koko maa ngi koo ñaanal mhm. en bi ko yàlla en mu gën oyof because yàlla du la jiital bi pare mhm. faxat sàlla dëgg la because moom du nit dëgg la waaw du def yëfi nit mhm. am na solo wax dëgg neexe la mbokk yi dafa mel ni li la waxtu mayoon waxtaan bi am na solo lool ñuy gërëm kii nga xam ne nag mooy ba ha excellence yi madame Fatoumata Bah Barrow nee leen tey moom leen am si programme yi jigéen mu yóbbu ñu si beneen level yóbbu yaa daan si beneen level caméraman bi Yobu Yusufa si benen level Bakary yobu len ci benen level ah ak yi nga xamne moy mooy Assane Yusufa ak Mr Tunkara yobu ko ci benen level. So ñu koy gërëm diko sante ci si kaw loolu di gërëm yi nga xamne ñom len andalon ñom ñep ci si waxtaan gi le ñuy gërëm ki nga xamne tamay moy madame Fatoumata ha excellence Excellency mbokk yi gëre gën jëf lii la ñu waxtu mayoon. ma ngay ñaanal staff si. QTV ak ah, borom QTV si bopam muy suma broda mohammed Dia. Tunkara tamit xamna ko bu baax suma broda Soda la. waaw man leen naa ñaanal yéen ñëpp. liggéey bi yan na yokku yan na yàlla xeeb doole yan na leen may li ngeen soxla amiin yaa rabbi yooyu ñu ngi lay ñaanal yàlla yan na la yàlla may gudd fan ak sa njaboot li nga xam ne moom nga séntu si réewi Gambia yan na la ko yàlla defal ah, lépp loo xam ne ñaan nga ko rek te muy lu baax yan na la ko yàlla defal wax di gaane xela gis ne ne ku oyof nga te wax di gaane xela gis ne ne tamit ku xam ni ngaa waxee ak askani réewi Gambia nit ki nag soo ko xamul lu ne ngay wax waaye fekk toogoo moom rek doo mën a xam ban façon nit la waxtu bu gàtt bi nga xam ne am neen ko ak yow mun na ñoo wax lu bëri si yow kay bu ma toogee na di nuyu suma xarit madame Fatoumata Ba Baro bul ne dee dee de kii du suma xarit de dee defe naa fu mu nekk ay xarit leen. non loolu loolu xam naa ne doo ko wax dama lay toogi rek macha allah mooy euh, yàlla moo boole ne tey dinañ gisee. dëgg la yàgg naa laa gis télé yàgg nga maa gis télé la moo de lii nii moom moo naa dinaa la nuyoo nuyu ba nuyu du desati. ah su ma yokkal la rek. ma yokkal ma yor ma bos rek yokkal la. macha kon mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm. <laughs>